إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ولا نكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد yéen mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu nuyóob lislaam nuyóob lislaam mooy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw loolu xam ngeen ne danoo nekkoon di firi suuratul fatiha biñ démé ba ci digg bi koor gi ñëw te koor bi lu mag ay jaamu yàlla yu bari yu mag aju ci loolu mo taxoon ñu dogon firim suratul fatiha mi ñëw ci koor gi bi koor gi jeexé ak légui itam dañu fé demoon tukki séti docteur ya waaye alhamdulilah rabbil alamin dem nañu ak jàmm ñëw ak jàmm ñu war a continuer nag tàmbalewaat ca fanu yemoon ci tafsiru suuratul fatiha euh, xam ngeen ni ñoo ngi mujjoon a firi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in déedéet ñoo ngi mujjoon am ci loolu la aju woon incha taala tey ñu war a tàmbalee ci wa iyyaka nasta'in luy maanaam wa iyyaka nasta'in ak lu mu ëmb ndax tawxid a ci ak jan xeetu tawxid la tawxid jooju nuus ci shirke wa iyaaka nastain ndax ñaan a ci li ñuy ñaan nan la lan la ak nus koy ñaane loolu mooy li nu war a li nu yéene leeral ci wa iyaaka nastain ñooñ ñaan suñu borom yàlla mu sàmm nu sàmmal nu sunu làmmiñ dolli nu xam tawfiqal nu ba leeral ko leer bu leer ngir jëmmam ju tedd te mu may leen te may nu ak dégg te may nu tawfiq yi luñ ci dégg nu jëfe ko ni ko yàlla bëgge te yàlla jéggal na suñuy bàkkaar te nangul na suñuy jaamu yàlla yépp bu nu xoolee nag wa iyyaka nasta'in li mu ëmb buñ koy bëggee seet dañuy jëkk firi wa iyyaka nasta'in pirum baat ak baat wa wa ji mooy te wa iyyaka nasta'in te ci yow dong la wut ndimbal loolu la firi ci wolof te ci yow dong la ñuy wut ndimbal mu am baatu dong ak baatu wut baatu dong baatu tawxiid la baatu wut baatu ñaan la loolu bi wane ne euh, wa iyyaka nasta'in dafa ëmb tawxiid ëmb ñaan wa iyyaka nasta'in ci yow dong la wut ndimbal mooy maanaam noo ngi wut ndimbal ci yow waaye wutu ñu ko ci keneen te duñu ko wut ci keneen mu ngoog ngi wut ndimbal ci yow loolu ñaan la mooy dimbalinu duñu ko wut ci keneen loolu wéetal yàlla la ci yow dong dañ koy wut wala duñu ko wut ci keneen kon boog mu mel ne waaye yaakaar na saxiin dafa day jenn jumla ju am bu ñaari jumla دفع أمب لا نستعين غيرك ما دلوت نبلتي كود اليوم أمبت نستعينك نانيوت نبلتي يوم يوي نعري معنى مملا وإياك نستعين أم أه بهذا فنستعينك دعاء ولا نستعين غيرك إقرار بوجوب توحيد الاستغاثة بالله تعالى وادعاء لالتزام هذا التوحيد ونفي للشرك فيه buñ seete ñaari jumla yooyu ma ëmb nastainu ko mooy ñoo ngi sàkku ndimbal ci yow loolu ñaan la wala nastainu xayru xayraka dunu wut ndimbal nag ci kenn ku dul ci yow loolu tawxid la te itam ak warlul yàlla la ak dig goo ko dig ak wax goo wax ne yow kat doo wut ndimbal ci keneen ku dul moom bi maanaa da nga ko wéetal ci wut ndimbal لولا يتك أها ونفهم من هذا أن وإياك نستعين تتضمن توحيدا لله تعالى فقد فأني دعو تيدقني إياك نستعين دفع أم التوحيد دفع أم حياة التوحيد جم أم وإياك نستعين دفع أم حياة التوحيد جم أم جتد توحيد الاستعانة بالله تعالى توحيد الاستعانة بالله تعالى توحيد لجوحنا وإياك نستعين دكو أمه tawxiidul istianati billahi taala mooy nga wéetal sag sàkku ndimbal jëmale ko ci yàlla dong te bañ koo jëme ci keneen aha su ko defee jaam bi nag jamono yi muy jàng fatiha moo xam day julli moo xam nekkul ci julli déglu leen bu baax loolu yow mi may dégg jamono yi ngay jàng fatiha ba ak si wa iyyaka nasta'in na nga teewlu ci sa xol ni wax nga ñaari yëf def nga ñaari yëf na nga teewlu ci sa xol ne jiital guñ jiital iyaaka muy maf'ul mi mujje nasta'iinu muy fi'il ji ak faa'il ji loolu xasr la tudd ci làmmiñu arab foofu li nga fi def mooy da wax ni da nga wéetal yàlla ci sàkku ndimbal ci moom te doo ko sàkku ci keneen yàlla ngay waxal da ko ne maa ngi lay wéetal yow yàlla ci sàkku gu may sàkku ndimbal ci yow loolu la teg kon boog loolu maa ngi lay wéetal ci sàkku ndimbal gu may sàkku ndimbal ci yow soo ko waxee tey wax ak yàlla war ngaa xam li nga wax war nga koo nar ci sa xol war nga koo fas ci sa pas-pas war nga koo teewlu tayit war ngaa fexe ba moytoo fen ci loolu ndax bi nga nee saa yàlla maa ngi lay wéetal ci sàkku ndimbal ci yow bi maa du duma sàkku ndimbal ci keneen ba noppi jóge fa di sàkku ndimbal ci keneen yaa ngay fen ca la nga waxoon ci fatiha ba ngay julli mbaa ba nga julliwul fen woowu nag mat naa mooy ko fen yépp a bon waaye fen wi ci yées mooy taxaw ci kanamu sa borom yàlla di di wax ak moom bu noppi di fen ci wax ji loolu yeneen ci yàlla musal kon boog faw nu bàyyi xel ci loolu aha bu ko defee itam nga teewlu ci sa xol ne da ngay sàkku ci sa borom yàlla mu dimbali la ci sa mbir yi yépp mu ngoog moo tax iyyaka nasta'in dafa ëmb tam ak ñaan da dangay ñaan sa borom yàlla na la dimbali ci say mbir yëpp na la dimbali ba nga julli julli gu baax gu mel ne mu bëgg na la dimbali ba nga fonk yoonu jàkka ja na la dimbali ba nga am aw jiw woo jiwee dimbali ba nga bay sa tool na la dimbali ba nga am njël na la dimbali ba ngay jàng alquran lépp loo xam ne yaa ngi koy def ci sa àdduna yaa ngi ñaan yàlla mu dimbali la te itam yaa ngi dig sa borom yàlla ni doo sàkku ndimbal ci keneen ku dul moom su ko ñaan googu na nga ko fas te teewlu ko ndaxte kuy ñaan yàlla li koy ñaan da koy fas te teewlu ko dig bi it te mooy du ma sàkku ndimbal ci keneen ku dul yow na ko fas te teewlu ko yàlla ci yàlla dimbali. Mm-hmm. wa talabul awni hada mawjudun aydan fi ba'i al-basmala bismillahi fi bidayati iyyaka nasta'inu ñaan gi ci nekk te mooy sàkku yàlla dimbali la am na feneen fu mu ñëwoon ci fatiha ca njaal benn mooy bi nga kàbbaree ba ñaan duaaw istiftaax ba noppi wax bismillahi rahmaani rahim boo nee bismillah xamal ne ñaan loolu ñu bari xamuñu ko ñu bari bàyyiwuñ ci xel bismillah ñaan nga nga jàngee fatiha ne bismillah loolu mooy ñaan nga jëkk a def da ngaa ñaan ndimbal baa ci bismi bi baa googu baawul istiaana la tudd maanaam baawuk sàkku ndimbal kon baa googu da nga ciy sàkku ndimbal ci yàlla bi nga xamee ne yaa ngi ubbi bunt bi ne maa ngi ubbi bunt bi boole kook di sàkku ndimbal ci yàlla mu dimbali ma ci ubbi gi alhamdulilah rabbil alamin kon euh, noo ngi doon wax ne bismillah bi nga wax bi ngay jàng fatiha bi nga ne bismillah xam nga ne ak baa nga jëkk a jàng baa googu mu ngi tudd baawu baa ul istiaana baa ul mooy baawu sàkku ndimbal kon dafa mel ne wa iyyaka nasta'in am na nu mu nu roog baaw nu mu baawu bismillah baawu bismillah bismillah mooy maa ngi tàmbali sama jëf ji mbaa sama wax ji boole koog di sàkku ndimbal ci yàlla mu dimbali ma ba jëf ji mat loolu bismillah di tekki ويشرع التلفظ به عند بداية كل أمر ذي بال ومعنى هذا أن الله تبارك وتعالى على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم يرشدنا ويأمرنا بالاستعانة به وطلب العون منه تعالى بواسطة ذكر البسملة عند الشروع في كل عام li nga xam ne bëggoon naa koo fàttali sama bopp نبارك يرخم ko te إن شاء الله moo di e, bëgg nañu ab jullit lépp lu muy def lu am solo mu tàmbalee ko bismillah ma nga lépp looy def lu am solo booy ubbi bunt waxal bismillah boo koy ub waxal bismillah booy sol sa mbubb waxal bismillah boo koy summi waxal bismillah boo yéeg ci sa daaba oto la wala fas la lu mën a doon waxal bismillah booy wàcc waxal bismillah booy lekk waxal bismillah bismillah sharia daf noo sant ñu di ko wax ci jëpp jëf ju ñuy jëf te mu am solo te bismillah li muy tekki mooy maa ngi sàkku ndimbal ci yàlla mu màgg mi mu dimbali ma ba lii may bëgg a def moo xam sol mbubb la wala summi ko moo xam lekk la wala naan moo xam dugg la wala génn lii may bëgg a def maa ngi sàkku ci sa boroom yàlla mu dimbali ma ci loolu li muy tekki mooy suñu borom yàlla daf nuy jàngal te daf nuy sant dañuy sàkku ndimbal ci moom xam ngeen ne yàlla mi ku bari yërmande la xam ngeen ne yàlla mi ku baax la baax ak bari yërmande te weesu fekk sab jaam boo xam ne li ci gën a bari sax boo sàggane ma nga lay tooñ tooñ yu bari nga ni ko damaa bëgg nga boole ci sama diine ji deel sàkku ndimbal ci man ci la ne deel sàkku ndimbal ci man kooka ndar na laa dimbali te itam boo ko sàkkoo ci moom dina la ko defal kon bokk ñun ñëpp nañ bàyyi xel ñaari yëpp di sàkku ndimbal ci yàlla ci bismillah ci lépp lu koy lu nuy def teet nu bàyyi xel ci cangam googu ak mbaaxam googu ndax nu rus ko wàññi lu nuy jàdd ay ndigalam yàlla nu ci yàlla dimbal وهذا mm-hmm. itam loolu nga xam moom la ñu yàlla sant te mooy looy def nga tàmbalee ko bismillah looy wax nga tàmbalee ko bismillah li ci nekk ci ay njariñ kenn mënu koo lim nu ngoog di si nekk si ay njëriñ kenn xamul nu mu toll te bu neexee yàlla ci beneen xutba incha allah bu nu yàlla mayee fekk ak tal yal na yàlla may fekk ak tal daanu dellusiwaat ci mawduu bismillah ba xam li mu ëmb ci ay maani ak ay njëriñ ñuy wax ci aslaf incha allah taala ak tam ni ñu koy defee. وباب الاستعانة في التسمية له دلالات متعددة فهو يدل على استعانة ومستعين. bu ko defee nag. إياك نستعين wala baaw baaw bismillah. benn bu ci ne ëmb na ay tegtal ay mbir yu bari bokk na ci li mu ëmb ak sàkku ndimbal bu ñuy sàkku ndimbal ci yàlla loolu leer na waaye itam day tegtale day junj itam kii sàkku ndimbal di junj itam ki ñuy sàkku ndimbal ci moom ndax bu ñu ne ak sàkku ndimbal am na kon kay faw am na ku ñuy sàkku ndimbal ak ku ñu koy sàkku ci moom bu ko defee ki nga xam ne kii mooy sàkku ndimbal mooy jaam jaam bi mooy mooy jaam bi moom mooy nga xam ne dafa lot mënul dara dafa ñàkk amul dara dafa tële mënul dara dafa ñàkk amul dara te dafa soxla lépp kon daa soxla ku ko dimbali kooku mooy kii sàkku ndimbal mooy jaam bi ki ñuy sàkku ndimbal ci moom mooy yàlla mu màgg mi nga xam ne mboolem melukaane mat yi dajale ci moom moom lépp luy ak mat mi ngi ci moom doylu na walis lépp soxlawul dara تيتم تلو الدرا تلو الدرا تمامم لب تسوغل وتي درا خوخ ماي كي مانا ديمبلي يالنا ديمبلي كي سونو لب كون بات كي ماي كي ديمبلي كلي ماي كي ساكو ديمبلي اها والاستعانه نوعان غيبيه وغير سوكو دافا نك ساكو ديمبل ورنا لو خامني نياري خيت نياري خيت لا دا بوغن يومي جولي بيغنا واياك نستعين mooy ci yàlla dong lay sàkku ndimbal ah war ngaa fexe ba doo ci fen doo ci fen mooy maanaam doo fa jege di sàkku ndimbal ci keneen ku yàlla ah kon kat luy maanaam sàkku ndimbal abdal yi suri mu ne soob tool kat daa bari ñax maa ngi ñaan waa dëkk bi ñu dimbali ma ca mbay ma dem bayal ma fa xanaa kon lool tam kon lu baaxul la déet sàkku ndimbal day ñaari xeet da cee am aw xeet wu ñu tere ak aw xeet wu ñu santaane ci sart loolu mooy li mu bëgg a leeral kon bokk sàkku ndimbal day ñaari xeet ban ak ban sàkku ndimbal koo xam ne sàkku ndimbalu ko xay bi sàkku ndimbal ci lu aju ci xay ak sàkku ndimbal ci lu ajuwul ci xay bu sàkku ndimbal ci lu aju ci xaybu wareesu ko moom la ñu wax ne wareesu ko def ci kenn ku dul ci yàlla waaw sàkku ndimbal ci lu aju ci xaybu moom la ñu wax ne wareesu ko jëme ci kenn ku ci yàlla te boo ko jëmee ci keneen ku ci yàlla rek mu daal di doon bokkaale daal di doon ak cànkute sàkku ndimbal nag boo xam ne jëmul ci xaybu googu sàkku ndimbal moom kenn terewu ko وهم لا kenn tëriwul ko waaye dañ ko santaane sax bu fekkee ne bii ci lu baax la aju waaye nag bu dee daa aju ci lu bon it dañ ko tere fàkk ndimbal goo xam ne ajuwul ci بل يؤمر به إذا كان على البر والتقوى وينهى عنه إذا كان على الإثم لولا وحنا ساكو نيمبال غو خامني جي ديس كو سانتاني بو فكيني بي تشي لو باخ لا اجو وا ديس كو تاري بو فكيه اجوول تشي لو باخ comme ni ko suñu borom daal wax ne wa taawanu ala al birri wa taqwa wala taawanu ala al ismi wal udwan sama borom yàlla leen na ngeen di dimbalante ci ak mbaax ak ci ragal yàlla waaye bu leen dimbalante mukk ci bàkkaar ak tooñ kon aaya jooju daf nuy sant nu dimbalante iyaaka nastainu danuy sant nu bañ a sàkku ndimbal ci kenn ku dul ci yàlla kon kay ñaari xeeti sàkku ndimbal yi daa bokkut بنك بنك قول لا بقى لا ان شاء الله والمسائل عن معنييهما الاستعانه الغيبيه وغير الغيبيه واو والجواب اننا نقصد بالاستعانه غير الغيبيه ان يستعين العبد بعبد مثله في امر يقدر عليه المستعان كون بوك ساك نيمبال جيماي جيكا لير ما ساك نيمبال غو اجوول سي غيب غوغو ما جيغا خامني waxuma laa kenn terewu ko waaye sax bu jëmee ci lu baax bu jëmee ci lu bon nag yàlla da koo tere googa sàkku ndimbal mooy gan mooy ab jaam sàkku ci moroomum jaamam mu dimbali ko ci loo xam ne lii ajuwul ci xay bu ah, nit mën na ko ah, nit mën na ko ku ne xam na ne bay ab tool nit a koy def kon ab dalistre bu ne dafa bëgg ko dimbali ci ay toolam ndax dafa bari ñax walla mu ne dafa bëgg ko dimbali ci ab kaas kare bu mu bëgg ñu ñëw rabatle ko ko te yëkkatile ko ko teg ko ci kaw jën ya ndax sa loolu mbooloo koy def kenn du ko def loolu sàkku ndimbal la goo xam ne ab jaama koy def mu jëm ci moroomum jaamam waaye muy sàkku ci moom loo xam ne jaam ñi man nañ ko loolu mooy sàkku ndimbal gu jëmul ci xay bu loo xam ne lii ku ne xam ne ne lu su man la ni ki kaay jàppale ma kaay dimbali ma ma yëkkati saaku bi dimbali ma ma yëkkati euh, euh, euh, fauteuil bii yooyu yëpp ay xeetu sàkku ndimbal la yoo xam ne dagan na aha an yastaina ar bu fekkee ni bi da sant sa nja sa njaboot sa jabar da nga koo sant julli wala xijaab nga wax wax wu të nga seet koo xam ne moom boroom xam-xam la nga yaakaar ne kii de moom mën na laa waxtaanal ak moom ba mu fonk julli wala mu fonk xijaab nga ne ko dimbali ma ci sama soxna si ba muy xijaab wala ba muy julli dimbali ma ci moom ndax mu am diine ba tey boobu xeetu sàkku ndimbal sàkku ndimbalu zaahir la goo xam ne ajuwul ci xaybu googu dagan na aha loolu mu yooyu xeetu sàkku ndimbal aju ajuwul ci xaybu mooy li mooy li may tuddee sàkku ndimbal goo xam ne gi jëmul ci xaybu googu nag mooy nga xam ne santaanees na ko santaanees na ko bu fekkee daa jëm ci lu baax ni ki dimbali ma ci sama soxna si waxtaanal ma moom muy julli walla dimbali ma euh, euh, euh, ba ma yëkkati sama néeg bi wala kaa dimbali ma damay kuule nga dimbali ma ba mën a kuule loolu lu baax la loolu sa borom yàlla nee na ni dimbalante ci lu baax yu mel noonu amma dimbalante ci lu bon yàlla da koo tere dimbali ma bu ma toj bitikub jàmbur bi sàcc ko loolu day ëpp naa dimbali mukk الاستعانة غيبية وأقصد بهذا النوع أن يستعين الإنسان بغير الله تعالى بالأمور الغيبية أما ساك ndimbal goo xam ne gi dafa aju ci xaybu te moom ñu tere ko mooy ab jaam di sàkku ci ab jaam ni moom loo xam ne lii dafa aju ci ëllëg nekkul ci loxol mindaafan ci loxol yàlla dong la ne loolu mooy sàkku ndimbal gu aju ci xaybu lolu moy liñu liñu tere mom la fatiha bañ ku ko def ba tax mu hasru jital iyyaka mujj nastainu wa iyyaka nasta'in fi yow dong la ñuy sàkku ndimbal aha ni ki da nga bëgg fan wu gudd da nga bëgg wërsëg wu yaatu da nga bëgg mu nga yoyu am ko ko yor yàlla yàlla moy guddal aw fan yàlla moy yaatal wërsëg yàlla dana yàlla guddal suñu fan ta yaatal suñu wërsëg waaye nag moom rek moo ko mën de ab jaam ko aha naka noonu nekk ci ab xat-xat nekk ci ay problème bëgg caa génn yàlla mooy ki nga xam ne kii moo la mën a génn ci ay xat-xat ak ci problème yàlla na yàlla musal ci ci problème jamono yi ngi ci tolloo da ngay ñaan yàlla man nga waxtam sa moroomum jaam rawatina bu dee koo yaakaar ci yàlla mu ñaan la la waaye kooko it xamal ne day ñaan mayewul ñaan ak maye bokkul yéen ñaar ñaar jaan ngeen da ngeen di bokk di ñaan man ngaa ñaanal eh, Mamadou Bambi yal na leer may fan gudd nga ñaanal ko ko waaye nag mënoo ko ko may kii maye kenn la mooy yàlla su fekkee ne bi dangaa dem ci Mamadou Bambi ne ko damaa bëgg nga may ma fan wu gudd wala damaa bëgg nga may ma wërsëg wu yaatu wala damaa bëgg nga génn ma ci xat-xat yi ma nekk kon yaa ngi fekk loo xam ne mbirum xaybu la yàlla rek ko yor nga di ko sàkku ci jaam te loolu mooy li iyyaaka nasta'iin di tere الامال المتعلقه بالمستقبل لب لو خمنا لا يالا رك موتا من دار ولو كو ساك سمروم جام بوكو ساكو تي موم مو دال دي نك خيت الشرك بو ني واخ الشرك في الاستعانه خملني واياك نستعين بوك ونستعينك نستعينك موي نوان دي ساكو سي يو بوت اياجي تدي نونو kon mooy maanaam yaa ngi sàkku ndimbal ci yàlla waaye nag iyaaka ji mafuul mi ñu def ko damir daf ko damir yoo xam ne damir yi munfasil la damir yi nas bi munfasil jiital ko muy wa iyaaka ñu mujje fial ji ak faa'il ji te xam ne li doon cosaan mooy fial ji jiitu faa'il ji topp ci mafuul mi mujj loolu nag kenn defu ko xana jiital mafuul mi daf ko damir yi munfasil jiital ko loolu li muy tekk ci balaaxa mooy xasr moy manam sàkku ndimbal bul ko def ci kenn ku dul yàlla mo taxit limi tek moy man day man mi julli day yow sa borom yàlla ma ngi lay wéetal ci sàkku ndimbal duma sàkku ndimbal ci kenn ku dul yàlla aha وقد خرج الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم إمام أحمد رضي الله عنه من نتلي أب حديث بلغت سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن عباس نينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دفع مصور تقوك خمجن تقيم قواري لا مصور تقوك تفك سيدنا عبد الله بن عباس بابا خالي بن دولة خمجن سيدنا عبد الله بن عباس يصحابه يندوي لبوك نينا يوان تبي تقوك دي وقتانا مولم كدل وقت يا غلام إني محدثك حديثا احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك يانت يا محمد صلى الله عليه وسلم ابلاغنا عباس نه بام كو توغي داكو نه ياو كاي ما اي بات بات يوي نانكو تي بو باخ بات يوي دي سي احفظ الله فو تولو ديل باي خل سا بروم يالا دي كو تيولو تي لوم لا سانت نانكو ديف سا كم كاتان نانكو تري نانكو احفظ الله فوتول ديل سجتك سحتك رجل يلا نك تندي لم تباي ترى يحفظك كل يلا جن الله وقت فوتول تلو من نك يلا دمت نك يو دنيا نيان تبلي بوجان سندار لنا عباس تكون لول من أنا يعنى باي بنا ورني جنجال أي دومم بس بس التوحيد mag mu ne war nay jàngal ay goneem pas pasi tawxid mu ne ko foo teeta war na koy jàngal xam yàlla ak teewlu ko ak jaar ci ndigalam ak ba ay tereem mu ne ko ixfadillaha foo tollu deel garde jëfe li la yàlla sant te bàyyi lim la tere te sa xol nay faral di nekk ci yàlla yaxfadka boo ko defee yàlla dina la wattu ci lépp lu bon lépp luy fitna te itam yàlla dina la taxawal ci soxla yépp mu ngoog ixfadillaha foo tollu del bàyyi xel yàlla ci say jëf ak say ba تجده تجاهك بقدر سي فو ني مو لا مو فجال لا فو غيسو غيس كو موم يلا يالنا نو يالا ماي لول اها اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله ديك لو باخ لم سي تك اذا سالت بودي نيان فاسال الله نيانال يالا بودي نيان نيانال يالا بول نيان كنن كودول يالا واذا استعنت بودي وكل ديمبلي fastain billah sàkkul ndimbal ci yàlla boo dee wut ndimbal wut ko ci yàlla boo dee wut ko la ñaanal boo dee wut ñaan boo dee ñaan boo dee ñaan ñaanal yàlla booy booy sàkku ndimbal sàkku ko ci yàlla bul sàkku ndimbal ci keneen ku yàlla ndax yàlla moom doo nga mën a dimbalee mhm. mu ne ko sans borom yàlla la muy dogal dogal na ko ba pare bind na ko itam te xalima gam ko doon bind sax baaja wow na kayit ya wow nañu loola kon sotti na bu noppi aha falaw jaat al ummatu yanfa'unaka bi mu ne ko xeet wi wépp wépp yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ko abdullah ibn abbas mu ne ko xeet wi wépp wépp bu ñu àndoon bëgg laa jëriñ dara mënuñoo fexe ba jëriñ la lu dul la yàlla bindal ci yow xeet wi wépp wépp bu ñu àndoon bëgg laa wàññi dara munu ñoo fexe ba wañ la luddul lu yàlla bindoon ci yow kon nag yàlla rek mooy bind moom rek mooy def moom rek mooy dindi kon bok yàlla moomu dong nang ko ragal yàlla moomu dong booy ñaan ñaan ko yàlla moomu dong booy wut ndimbal wut ko ci moom gis ngeen jooju tawxid du leer yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàngal ko abdullah ibnu abbas te booba xeet wépp lay waxal aha damaa bëggoon ñun ñëpp nag nu bàyyi xel ci nu bàyyi xel ci baatu li yonent bi wax lim ko ne booy ñaan ñaanal yàlla te itam booy sàkku ndimbal sàkku ko ci yàlla ak tam lim wax ni lim ko lim ko wax ni ko xeet yi wépp wépp wépp bu ñu àndoon bëgg laa jëriñ mu mënuñu laa jëriñ lu dul li yàlla nar ci yow li yàlla bindoon ci yow loolu tawxid la ju leer a leer a leer aha wa hada kalaamun nabawiyyun sariihun yuharrimu al-isti'aanata bi ghayri llaahi ta'aalaa aw su'aalahu wax ju leer a noonu ju jóge ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam joo xam ne day santaane tey tere day santaane kuy ñaan na ñaan yàlla dong kuy sàkku ndimbal na ko sàkku ci moom dong ndaxte moom dong moo la mën a may li nga bëgg te moom dong moo la mën a dimbali aha lu demee ne sàkku ndimbal ci ay jinne am na ñoo xam ne ñii dañuy sàkku ndimbal ci ay jinne am na ay talaasim ak ay xeeti ñaan yoo xam ne yi da ngay sàkku dara ci jinne ji mu nga aha wala ngay dem di ñaan di ñaan ay sëriñ ñaan ay sëriñ ki ay awliya sëriñ yi ñu baax lañu awliya yi yàlla sédd na leen ay martaba yu rëy la leen yàlla sédd yàlla na ci yàlla musal waaye nag bu mu tax mukk ñu def ne dañuy doon yàlla yàlla moom kenn rek la moom dong moo mën a joxe moom dong moo mën a xaja xañe wali yu mun te jox doomam lu tuut tuut lu ko yàlla joxul mun te xañ ab noonam lu tuut tuut lu ko yàlla jox ab jaam la waa lii lii Abdullah ibn Abbas yonent yàlla Muhammad wax ko ko sallallahu alayhi wa sallam wax la ju leer ci ne awliya yooyu mënuñoo jëriñ boo leen ñaanee mënuñu laa may boo wutee ci ñoom ndimbal mënuñu laa dimbali lu dul la soob yàlla dong moo mën a nekk ndaxte ñoom ci umma bi la ñu bokk sëriñ suñu baax bi ci umma bi la ñu bokk awliyaa yi ci umma bi la ñu bokk te nañ ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom setteewul kenn daf ne umma bi bépp bu ñu dajaloo bëgg laa jëriñ mënuñoo fexe ba jëriñ la dara lu dul la yàlla bindoon ci yow a te loolu mooy tawxid di nekk ci wa iyyaka nasta'in mooy ci yow yàlla dong la ñuy sàkku ndimbal yal nañu yàlla dimbali ba bu sàkku ndimbal sàkku ko ci yàlla dong yal yàlla musal ci ñuy bokkaale di sàkku ndimbal ci ko xam ne kii yorul sunu lor yorul sunu njëriñ aha waaye nag teewul bu ñu xoolee Sénégal te wax dëgg te nëbbu ñu ci dara daanu gis ñaan ay sëriñ bari na ci réew mi lool sàkku ndimbal ci ay awliya bari ci réew mi lool te xam ngeen ne dëppoo tego ay yaaka nastain ah kon boog ñooñu nga xam ne ñooñu nga xam ne saa bu ñu jaaxlee bu ñu tiitee seen xol du dem ci yàlla waaye seen sëriñ lay dem ñi nga xam ne bu ñu jaaxlee seen xol du dem ci yàlla waaye seen sëriñ lay dem ñi nga xam ne bu ñu dee bëgg a daanu mbaa ñu tarfati buñ ne duñu wax subhanallah duñu tudd yàlla waaye dañuy wax sëñ diw loolu nañ ci bàyyi xel bu baax te xam ne loolu wa iyaaka nastaan da koy tere te itam seytaane am na ay yoon yu bare bare ay bunt yu bare bare yu muy jaare foofu ba yàqal nu yàlla nu yàlla di musal ci seytaane am na benn bis man mii lu ma dal lu xaw a demee noonu damaa tukki dem Dakaaru am fay fan bay ñibbisi yàlla dawal nag ku bokk ci ñi ma ñi ma nekkaloon mu di ma tàggu gunge ma ba ca bunt ba mu ne ma mu dénk naa la seen jiw loolu la ma wax def mën a dénk naa la seen jiw ah te seen jiw kat génn àdduna ma nga ñu denc ca bàmmeelam mu ne ma dénk na ma ko lu ngeen xam ci loolu moo teem maa dénk yàlla yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama jàngal nanu bu nuy tàggoo ci tukki ñu boole ca tàggoo ga noo ngi lay dénk yàlla mu nga wax lay dénk yàlla waaye moom day sañ diw ma dénk xam nga loolu mooy li may wax rek aha am na itam beneen waay boo xam ne bii moom dafa ñëwoon di ma ñaan loo xam ngeen li ma wax dafa ne sëñ bi naa bëgg nga taal ma subhanallah ñeme naa ko taal sallaaw de bu woon bañ bàkkaar damay fab almet ji rak ko si teg ko mu tàkk waaye nag bëgguma bàkkaar te xam naa ne loolu kon tooñ lay doon mu ngoog moo tax dafa mën a daaw sëñ bi daa bëgg nga taal ma ndax xam nga lii maa daa bëgg nga taal ma xam ngeen ko de ah nee na naa ko taal moom mën naa koo taal xanaa su mbokk moo na taal taal sama bopp ma nga mënumaa taal kenn ab jaam fu taal kenn kii ubbee di ubbe kii yëkkatee di wàcc kenn la mooy borom bi subhanahu wa taala aha bu nu xoolee sunu réew mi ci biir jullit ñi seeni waxin li ci nekk ci ay baat yi wane bokkaale bari na lool waaye li day waar mooy suñu kilifa yi waxuñ ci lool dara te loolu dëgg dëgg suñu kilifa yi war nañ ko seetlu te wax ci te itam ñu ñu yee jullit ñi te xamal leen li nekk ci bokkaale ci seeni waxin ak seeni ki te te leen ci te delloo leen ci yàlla mu màgg mi wa taala loolu daal dëgg-dëgg suñu kilifa yu baax yi war nañ ko seetlu te itam ñu gàttandu fi taalibe yi te gàttandu fi jullit ñi te yee leen yal nañu yàlla boole jubal. أما عندما نتحدث عن المستعين والمستعان به فينبغي أن نلاحظ أن عبارة إياك نستعين تتضمن كما أسلفنا تقرير عجز الإنسان ووجوب استعانته بالله تعالى loolu ma wax lépp ñu aju ci al istiaana maanaam sàkku ndimbal sàkku ndimbal xeej wi ci dagan ak wi ci daganul loolu moom laa doon leeral mu des nag kii sàkku ndimbal ak kii ñi koy sàkku ci moom bu nu seetloo iyyaka nasta'in dafa ëmb wane gu muy wone ni doomu aadama day moom dafa lot waaw dafa mënul dafa tële dafa soxla ku ko dimbil loolu waxoon nan ko كيما ندملي نك كان لما يبرم سبحانه وتعالى تيال من دملي جسمي لب ضرورة أن المخلوق أيا كان لا يملك لنفسه ولا لغيره دوم آدم جي ندا فنرك دفلت فلت من البطن در بين من الكنن در القرآن دكو أندي سن برام يالا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نكو قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله قل وخل يوم محمد وخل مني نلين لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا من مومس يوم من جرين البط يرمس بلوري بط لسرضي الله ركا يدل سيدنا محمد لا وقت صلى الله عليه وسلم يلا كو نكون نال يرمس من جرين بط يرمس بلوري بط لسرضي الله ركا يدل سيدنا محمد موم صلى الله عليه وسلم xanaa moom mooy sëriña sëriñ xanaa mooy kilifa kilifa yi xanaa moo gën a foor ci li yàlla sàkk bu ko yàlla nee neel yoruma sama njëriñi bopp moom bu yoru njëriñi boppam nu muy yori njëriñi keneen koo xam ne kii sa njëriñi bopp yoroo ko nooy yore njëriñi keneen loolu lu mat a bàyyi xel la te Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu yorlu njëriñi boppam yorlu njëriñi keneen kon nu ko keneen di yore Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bala mu ne diw mi dina dem aljana sax yalla ko fay wax wax loo ko ko jotali lo ko mu jotali ko waye munul ne kenn da nga dem aljana ci lu sa borom yàlla wax loo ko moo tax it mos naa wax Fatima ne ko so gisee ci sama alal lo bëgg laaj nako aljana àjjana munuma mënu ma la ko jox ndaxte yàllaa ko koy jox mu ngoog aha وقال تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا في سورة الجن يلا وحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نكو قل وخل يوم محمد وخل من نيلين لا أملك لكم ضرا من ديمون ملين الله يلا وحق ينتبه بدا نكو وخل نيت نيلين من دي من ملين الله من ملين الجري ولا رشدا من ملين الجبل من ملين سانك kon boog kii lore di jëriña kana yàlla dong ki gindee di sànk kana yàlla dong la amliku lakum darran wala rashada qul inni lan yujirani min allah ahad yow muhammad nee man day amul kenn ku may làq arma kenen kudul yàlla kudul yàlla munuma làq kudul yàlla munuma ar mu ngoog walan ajida min dunihi multahada te itam su ma bëggoon a làqu yàlla aw ma fenn fu ma làqu yàlla xanaa fudul ci yàlla ma ngoog loolu la yàlla wax loolu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ci suuratul jinni loolu moo tax euh, boroom qurtubi tafsiru qurtubi al imaamul qurtubi mi ngi nettali qissa bu kiimaane ci ni firi aaya jooju te qissa boobu xadis la boo xam ne al bayhaqi andi na ko ci dalaa'ilu nubuwa imaam Qurtubi dafa wax ni Abul Jawza nee na Abdullah bin Mas'ud nee na ko benn bis dafa ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ci guddi jinne da ngeen kooku guddi de ca guddi jinne ya Abdullah Mas'ud nee na ma ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ñu jëm ca àll bu ñuy wax àlluf xujuun nee na ban demee ba ca xujuun nee na nee na ci guddi la booba nee na sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam rëdd aw rëdd ne ab ne ibnu mas'ud rëdd wii bu ko jéggi keroog ibnu mas'ud gis na kiimaan daa ànd ak yonent bi ñoom ñaar dong ci guddi gi bañ dem xujum xujun yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam rëdd aw rëdd ne ko rëdd wii bu ko jéggi ah moom nag mu jàll moom yonent bi nee ba mu jàllee ay jinne yu bare bare bare génn utsi ko di def mës mës mës bari lool te xam ngeen ne loolu raklu kenn nit taxaw ay jinne yu bare bare bari ñu wutsi ko nee jinne yooyee nag am na ci jinne ju mag jinne ju mag ju ñuy wax war daan nee na war daan daal ci kilifa yi jinne la bokk nee moom moo jékki-jékki ne sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam jinne yu bari yépp mën naa leen a dàq ñu dem ñoom ñëpp mën naa leen a dàq li ngeen yaakaar ne moom la sang bi war a tontu ay jinne yu baree baree bari jóg wut ci la te xamoo boo accès lu ñu lay def am na kilifa gu bokk ci ñoom koo xam ne seen kilifa mu ne ko jinne yi yépp mën naa leen a dàq jëlee leen fii fépp xam ngeen sayyidina muhammad lu mu wax da ko ne man day du yaa may dàqal ay jinne du yaa may làq ci ay jinne yi man ki may làq kenn la mooy yàlla dangeen ngeen loolu tontu da ngeen tontu lu dal li mu tontu te da ngeen tam sim ko ko tontoo man de waxuma jinne yu bari waaye jenn jinne kese bu jógoon wut si la nga gis meneen jeneen jinne ñëw ne jinne ji mën naa la ko dàqal moo loo koy wax subhanallah kenn ku nekk ci ñun na seet bu fekkoon dafa nekk ci ay zuruf yu xaw a mel noonu xaw ma ndax ay jinne yu bari dañ ko wut si mbaa jenn jinne wala daa feebar feebar boo xam ne bii da caa ragal da caa ragal ab liggéey te xam ngeen liggéey lu am la njabar ñu jabar ko wala wala wala mu ragal cet wala bët bu ay dal ko mu gis jinne jinne ju mel ne war daan ñëw ne ko man de si liggéey bi mën naa koo dindi waaye yow mu muy déglu loolu bu la daloon nooy def waay nga feebar feebar bu méttee méttee docteur yi passé visite seet seet ne gis ñu ci yow dara jox la ay garab nga naan naan garab yi jëriñul dara te buñ la passé visite mbaa ñu rajo mbaa ñu analyse duñ gis dara jinne war daan ñëw ci yow nag mbaa ku mel na war daan ne la sa liggéey bii la dal day man naa ko dindi loo koy wax yow may déglu wax ma loo koy wax rek ndax da wax li naa Muhammad waxoon alayhi salaatu wassalaam te mooy nga ni ko man dindi lu ab liggéey ci yàlla laa koy sàkko waaye du ma ko sàkko ci yow xam nga lu tax ab liggéey day ndurum xaybu day ndurum xaybu dooñul feebaru bopp bi metti boo xam ne bii mbirum zahir la ñu war koo mën a faj ci ay ay aspirine ak yooyu yi mbirum xaybu la gisoo ko xamoo taasir ba mu ngoog moo tax waroo cee dimbandiku ci ay jinne da nga cee war a dimbandiku ci yàlla ma lay laaj nag yow ba xam la loolu daloon war daan walla ku mel ne war daan ñëw ne man de mën naa laa dimbali ci sa eh, liggéey bi ba mu deñ loo koy wax ndax dangay wax la sayidna muhammad waxoon alayhi salaatu wassalaam ne ko man su may wut ndimbal ci yàlla laa koy wut wutuma ko ci yow am da ngay da da am da aha kay dindil ma ko dindil ma ko mu ngoog li yàlla sant mooy bu ko waxee nga wax la sayidna muhammad waxoon sallallahu alayhi wa sallam di ne man amul kenn ku may làq ci ay jinne amul kenn ku may dàqal jinne amul kenn ku may aar ku dul yàlla yàlla rek laa gëm moo mën a aare kon nag yow it war a gëm yàlla gëm gu toll ne xam dong moo la xam ne moom dong moo la war a aar mën a aar te itam yàlla am na ay ngànnaay yu mu la jox ngànnaay yooyee xam ko te gëm ko ngànnaayee boo ko xamul doo ko mën a gànnaayoo doo ko xamee te gëmoo ko doo ko mën a gannaayoo gannaayoo xam ngeen lanaa mooy alquran ak sunna sayyiduna muhammad sallallahu alayhi yaatu la sunna sayyiduna muhammad sallallahu lu yaatu la lenn lu ci nekk am na ci ay aaya ak i xadis yu jëm ci ab sëy nuñ koy takki ak nuñ koy tafe yu jëm ci jabar nuñ koy yore yu jëm ci doom nuñ koy ngéntee yu jëm ci atte ko war a doxale waaye itam am na ci yu jëm ci mulki bi aaroo ba nga xam ne ay jinne duñ mën a dal ci kawam ab liggéey du ko jàpp lu dal ci kawam rek ci yàlla la jóge waaye jógewul ci mbindaa fan am na te bokk na ci yow mu tari ayatul kursi yu bokk na ci yow mu saxal ñetti yoon qul wallahu falaq naasi subaat ngoon sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa ànd ak kenn ci saxaaba yi ne ko qul saxaaba bi ne cell mu ne ko qul قل ما وخال قل ما وخال صحاب بن جل منك قل بمي نتيون من منك ما ماي من منك قل هو الله احد الله الصمد بما اغ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق بما اغ قل اعوذ برب الناس آه، ملك الناس بما اغ نتي سار يوي بوك وخي نيت تي صبح من لا سجل لب بانغون بوك وخي تي ngon man na la fegal lepp jeex na mën na laa sagal lépp xanaa ab liggéey dugg na ca xanaa cet dugg na ca xanaa lépp a ngi loolu waaye nag loolu am na ñoo xam ne xamuñu ko am na ñoo xam ne xamuñu ko am na it ñoo xam ne xam nañu ko waaye gëmuñu ko gëmuñu ko gëmuñu loolu loolu mooy maanaam bu ñu xëyee mën nañu cee jaar ñetti yoon suba suba ak ngoon comme ni ko yonent bi jàngalee alayhi salaatu wasalaam waaye du tee ñu gëm ne ab liggéey mën na leen a jàpp kon ka yow gëmoo la yonent bi wax yonent bi nee na mën lépp mën na laa tegal lépp nga wax ko ba noppi gëm na ab liggéey mën na laa jàppati kon yow gëmoo sayyidina Muhammad alayhi salaatu moo tax ma ne la ngànnaay gi yàlla joxe wàcce ko mu jaar ci sayyidina Muhammad sallallahu boole xam ko ak gëm ko boo ko xamul doo ko mën a jëfandikoo boo ko xamee te gëmoo ko du la mën a jëriñ dara mu ngoog am na ku ñu wax abbaan doomi sayyidina Usmaan ibnu Affaan abbaan daa mos a wax benn waay ni ko sama baay Ousmane nee ma sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam nee na ko bismillahi alladi laa yadurru maa ismihi shay'un fi l ardi wala fi samaai wa huwa samiu alalim boo xëyee wax ko ñetti yoon mbettum balaa du la dal ci bëccëg bi boo wax ko ñetti yoon mbettum balaa du la dal ci guddi gi la wax mu ne baayam Ousmane ibn Affan nee ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa moo ko wax loolu bañ ci tegee ay fan ab ban paralysé bi ab ban paralysé ñu ko doon seet waa ji mu nettali woon wax jooju ñëw bokkante ñu koy seet si ba mu ñëwee nag xanaa mu di ko xool bëti yow da yaa ma ne woon yaa ma ne boo waxee loolu ab baan ni ko xam naa li nga xoole danga maa bëgg a wax ma ne ma yow yaa ma woon sa baay yonent yàlla muhammad nee na sallallahu alayhi wa sallam ku wax bismillahi alladi laa yadurru maa ismihi shay'un fil ardi wala fi samaai wa samiul alim ñetti yoon mbettum balaat la dal ci bëccëg bi loolu nga may xoole waaye maa ngi lay xamal ne fenalu ma sama baay sama baay ma ko wax te itam fenalu ma sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sama baay fenalu ko moo ko ko wax waaye li am mooy man bi ma xëyee damaa mer ba fàttee wax bismillahi alladi laa yadurru ah dafa mer ba fàtte ko ah mer maa ko ko fàtteloo moo tax yonent bi di tere mer te xam ngeen ne xaw ma ndax xam ngeen ne mer man naa paralyser loo nit boroom tension am na ñoo xam ne ñi bu ñu meree seen tension day yéeg te saa si rek mën nañoo daanu paralyser ab baan nee dafa mer ba meree mu fàtte loola ah boo fàttee nag boo fàttee yor sa ngànnaay ah bu la noonu do eh, songee daal lay jekku xam si ngeen ab baat moom xam na te gëm na nu it nanu xam te nanu gëm bu leen dem mukk ci jabar bu leen dem mukk ji ñaan ab sëriñ loo xam ne ab sëriñ yoru ko bu leen dem ci sëriñu tariyaax di ko ñaan loo xam ne lii moom yoru ko dem leen ci borom asamaan ak suuf ngeen ñaan ko am na ay ngànnaay yu mu leen jox fexe leen ba xam ko bu ngeen ko xamee fexe leen ba gëm ko su ngeen ko gëmee dee leen ko jëfandikoo te seen xel dal loolu mooy al istianatu billah daan ko gën a leer insha allahu taala bu nu yàlla mayee fekk ñu fekk yeneen ajjuma yal na nu yàlla may fekk ak tal yal na nu yàlla gindi yal na nu yàlla teeteel boppam yal na nu yàlla jéggal sunuy bàkkaar yal na nu yàlla may nu gëm ko te gëm alquranam ji te gëm yonantam bi صلى الله عليه وسلم يلنا يلا ما ينوي كي سنام تتيجه يلا يلا دخسون ديك يلا يلا